Pape Seck gars yi ñu ngi siyaare ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp may ndaw namoon nañu leen voilà donc euh, xam leen ne boo leen saa yoo leen ñu déggul ñu ngi ci terrain bi <coughs> voilà ñu ngi ci waar wi voilà ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax a baax léegi nag euh, ginnaaw bi ñu dégloo mercenaires yi ñu déglu analyste politique yi ñu déglu waa Pastef ci boppam partisan wu Pastef yi ñu déglu aussi ñi nga xam ne euh, comme nous ma koy waxee toujours c'est les voix autorisées du Pastef euh, Lolu yep mu indi ñu ci benn waxtaan waaye comme ni ma koy waxee toujours il faut ngeen bàyyi ñu xel ndax tey dañu ne woon le journalisme est le quatrième pouvoir maanaam tey communicateurs yi nekk Sénégal journalistes yi ñoo war a nekk quatrième pouvoir waaye loolu dafa soppeeku Sénégal tey opposition bi mooy premier pouvoir activistes yi di deuxième pouvoir journalistes yi di troisième pouvoir journaliste yi la wax di troisième pouvoir gouvernement bi di quatrième pouvoir journaliste yi ñoom amatuñu pouvoir parce que les sénégalais son éveillés xam nga dafa mel ni nga yor fenkat sa kër muy fen di fen di fen ba nga ràññee ne kii fenkat la maanaam moom mom rek a xamul ne présence rek la am ci kër gi waye ken calculeetu ko moo ñu dal ci sif yérim yërim duulkat sos Maymuna nduul manam mom yaakar nañu ne ñom ba légui ils pensent que ils peuvent manipuler les sénégalais yérim ginnaw ba mu doulé doulam yëpp ba paré dama leen di wax dara ci yérim sekk ngeen bay ko xel dafa collecté won manam dafa récupéré woon kalis, garantiral Macky Sall 3e mandat dama len di bëgg a yëgal dara ci yërim sék ngeen bàyyi ko xel té ngeen moytu nak bu baaxa baax sénégalais ndax ñun erreur yi ñi def yu gëna a mag ndax ñun bu len faté ne ñun ñoy seetaan ñun ñoy partager manam ñun ñoy maye ay vue té ñun ñoy xagn ay vue buñ ko bëggé ci Sénégal te ñun li ñu xamul mooy tous ces manipulateurs bu ñuy wax ci ñun lañu ñu pour ñu jëlal leen seen kàddu boobu tasal leen ko Yérim Seck dafa jëloon xaalis ci troisième mandat wu Macky Sall léegi nag comme troisième mandat bi lajj na mission biñ ko sant mooy mu fexe lépp lu mu man pour dugal ci suñu biir xel yi nasaxal Pastef fexe ba Ousmane Sonko du bok nanguloo ñu gëmloo ñu ne Ousmane Sonko de vraiment warul na nañu dem ci ay plan lolu moy ligéyam donc il est dans son devoir bu fatene. élection 2020 2019 bi yagul dara bu féké Tilo Oil Baba Aydara Cheikh Yerim Sek. ak yeneen journaliste yàqoon fi Ousmane Sonko ñu ne dañ ko jox xaalis cent cinquante mille euros pour campagne ñu jàpp turam bi di ko yëy di ko yëy di ko yëy di ko yëy yaayoo ndekete ñoom dañu doon dañu doon impersonate maanaam jël image yu benn benn journaliste anglais Mahili Jones du pas Mahili Jones beneen bi Mahily Jones mooy bosu Aliou Sall bi ñu imp ñu jël impersonnalisation kooku ba pare bind ay faux article maanaam lépp lu ñu doon bind muy faux ñu jël ko tas ko bu leen fàtte ne élection mooy waaja a jotaat Cheikh Yérim Seck mi ngi ci rôlam rolam mooy yàq Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ba duñu am dara ci élection yi loolu mooy rôlu Cheikh Yérim Seck bu leen waxee rek laaj leen ko ne leen ko Cheikh Yérim Seck bu ne moom day def analyste si mbirum Ousmane Sonko ne leen ko na setal mbirum Tilo Owel bi laaj leen ko lool ne ko mbirum Tilo Owel bi fi waxoon élection deux mille dix neuf jël der Sonko bi peinture ko ñuul fenal ko sosal ko léegi lan mooy différence deux mille dix neuf ak deux mille vingt quatre mooy léegi dem nañu ba xam ne Ousmane Sonko du sàcc. du laal alalu sàcc du fenn du ànd ak kuy duul léegi ñu ne nañ ko jël ne wala mënu la bokk waaw élection yi waaw vraiment rajo nañ ko ci liste dama leen di laaj dara gars yi atte ci àdduna bi yëpp saa bu ñu attee doomu aadama dafa am lu tudd recours maanaam bu dee Amérique appel lañ ko tuddee lagi atta bo xam ne nañ ko recours yi nga xam ne war nañ ko def defuñu ko ba mu seuss doomu adama bobu techniquement il n'est coupable de rien manam atta bi matul parce que atta bu bi premier atta la atta ñaaral bi pour confirmer ndax li premier atta bi wax deug la wala du deug cassation mooy jël décision bi nga xam ne moom mooy décision mu mujj léegi yow nga ne ci état de droit nga nekk ñoom ñoo ko wax de ñu ne senegal am na yoon ñoom mel ni ñii ne Sénégal am na yoon ñu ne atta nañu diw pareegul atta ba jeexagul ñu ne def nañu lépp mat na wala léegi bokkatul ci dara ñoom kenn ci ñoom musu leen ne Ousmane Sonko bu ñu demee ak ak moom dañ koy duma loolu amul ci Sénégal loolu du wax xam nga luy seen kàddu ah Ousmane Sonko du bokk mi ngi mel ni ñu tëgg làmb ñu ne lamaraana a ah, duma ma tudd waa ji Guèye damay tudd suñu mbër mi ni mu tudd ba Amma Balde Amma Balde moo wara a bëre ak lamaraana xam ngeen ne bëre boobu amul bëre amu fa donc Macky Sall mooy lamaraana Ousmane Sonko mooy Amma Balde léegi xam ngeen foofu komba amul léegi kenn newatul Ama Balde da koy daañ dañu ne eh, Ama Balde amul droit bëre déglu leen de ñoom ñoo tëdd komba bi ñoom ñoo tëgg combat ñoom ñoo ne lamb la ñuy tëgg Ama Balde ne prip yëkkati loxoom lamaraana tamit yëkkati loxoom ne waaw nañu dem léegi ba ñu demee ba ci biir ñu ne non non non lamaraana nee na moom mooy toog di bëre ci lamb ji di fecc waaye Ama Balde bokku ci xam nga loolu mooy jaay doole te man gëm naa ne sénégalais yi ma xam sëtu maam Bamba sëtu maam Dabaax sëtu Baay Ñas man sénégalais yooyu ma xam man gëm naa ne ñun kenn ñu jaay ndey doole ci àdduna bii man gëm naa loolu ndax makki sàll won nañ ko boppam woon nañ ko ne sans policier Sénégal yooyu sans le petits gendarme mineurs du Sénégal la Macky Sall il n'est rien du tout ñun won nañ ko loolu tey won nañu makki Sall ne du dara il n'est rien won nañu kanamu àdduna bi yëpp ne makki Sall jarul dara amul fitt làmmiñ la am waaye amul fit léegi nag doomu Sénégal yi maa ngi ñëw ci benn waxtaan bu am solo muy parenage bi nous avons fan yi mu am juróomi mandataire yu dem récupérer ay parrainage pour juromi individu yu El malik Guy Marissagna, Abbas Fall Biram mercenaires yi démb bi ñu toogee ñoom ci seen télé ba nee nañu Bassirou Diomaye Faye la Ousmane Sonko war a tànn mu doon plan B waaw Guy Marius Sagna buñ ko tànnee Cheikh Yérim nee na moom waaw Pastef ma ngay waaj a tas Cheikh Yérim bu dépendroon ci yow rek Pastef ma ngay tas depuis deux mille dix neuf te Pastef dara tasu ci Pastef mooy parti bi gën a dajaloo ci àdduna bi ma wax leen ko tey sénégalais parce que li mu tudd parti boobu Pastef la tudd léegi gars yi dafa am loo xam ne dama bëgg ñu leeral ko ci parrainage président Ousmane Sonko moo joxe ndigal mu ne juróomi tur yi ngeen dégg fépp fu ñu dem man ngeen leen parrainer ci turu Pastef ñooñu jóguñu rek nekk ay candidat daw dem wuti ay parrainage na candidat la non non Lalu apa lam am mom la aling nguy ndjay jog mu ne candidat bopam la Mame Boye jog muna mu ne candidat bopam la Abdoulaye dawda Diallo jog mu ne candidat bopam la te Macky Sall mënul contrôler dara lan la def dafa dak Mame Boye Diao Aly Ngouille Ndiaye mom moom moo bàyyi liggéey bi bala sax ñukoy dak parce que dañ koy dak ak ñom euh, jor euh, euh, ak ñeneen amul ben discipline kenn ku nek ya demal sa bop loolu mooy dëgg léegi nag ñii nga xam ne ñoom ñooy waa Pastef benn ndigal rek moo fa am mooy Ousmane Sonko moo joxe ndigal mu ne ñoo ñele juróom yooyu yëpp dem leen ngeen nekki ay mandataire pour ngeen am li nga xam ne moom mooy parrainage léegi il faut nit ñi xam loolu dañu bëgg ngeen xam ne ñooñu jógaluñu seen bopp demaluñu seen bopp doxaluñu seen bopp kilifa gi kilifa keur gi mo joxe ndogal muy le président Ousmane Sonko mu selmi ba Afrique di Afrique ba legui ba aduna di aduna ba legui ñu tuddu président tuddu ci mu selmi ci Ousmane Sonko la tambalé ndax président liñ ko doon xamé moy njuuj njaaj ak wuru ci rek donc bayi len xel ne ku yor kaddu Pastef Usman Sonko moko digel digal mu jël kaddu Pastef tambalé ko ki Guy Marissagna mi def tournée international bi kaddu Usman Sonko Biram Souley Diop kaddu Ousmane Sonko El Malik Ndiaye kaddu Ousmane Sonko Jomay Faye kaddu Ousmane Sonko bu len Biram Souley amin pas Biram Souley mais euh, euh, euh El Malik Ndiaye ak ki nga xamné moy Bassirou Jomay ñaar ñoñu ñoñu jëk commencé tournée international ñoo fi demoon Paris adduna bi yëpp gis nañ leen fi ñu dem Paris El Malick daan na ñëw Amérique di dem fu ne mais Macky Sall dafa def El Malick sous contrôle judiciaire mu tëj euh, euh, maanaam euh, kële nga xam ne moom mooy Jomaay Biram Souley xaw ma kaawam ci côté passeport am mais je sais que Guy Marius moom daf ko fàtte ndax pour moom ndeysaan xam nga dama bëgg ma wax sénégalais yi dara tay ngeen xam ko loolu c'est important ma leen koy wax dama dafa important ma wax leen li Guy mari Sagna liñ ko topé ñun yépp Ousmane Sonko la kaddu Ousmane Sonko la gaddu Biram Souley Diop liñ ko topé yépp kaddu Ousmane Sonko la gaddu El malik Ndiaye liñ ko topé yépp kaddu Ousmane Sonko la gaddu Abbas Fall liñ ko topé yépp kaddu Ousmane Sonko la gaddu kii nga xam ne aussi moom mooy basiru Diomaye liñ ko toppee yëpp kaddu Ousmane Sonko la gàddu ku fi gàddaa laaj leen ña nga xam ne ñoom ñoo fi ngand ngandul woon ñu séparé wu comme booy tooy laaj leen booy tooy ñaata nit a koy ne bravo tey ci senegal fi laaj leen kalifa Khalifa Sall mu tedd mi kalifa sàll laaj leen ko ba muy ànd ak Ousmane Sonko bu defane poste 10000 personnes wala 5000 diko di ko aimé laaj len ko fan la tollu goudi ñu toll ku débarrassé wu ci Ousmane Sonko ñu def la ni yak bu nakari xam nga yak bu nakari mom kenn manu ko xol waxatuma la lek donc gaay yi nañu dello ci wat kali te xamné képp ku fi ñew ci ndigalu Ousmane Sonko lay dox ñu fal ko ba ci kawa kaw ne la wi wi wi bravo nga indi fi ben yefu njuj njaaj wala poukere ñu sanni la ci poubelle bi ñun ñoo la ko garantiral ça c'est garanti te Macky Sall bëgg nañu mu xamné melentane sax bu ko Ousmane Sonko yëkëté melentane bu ko Ousmane Sonko yëkëté sax melentane bobu dootul nekkati melentane waaye hippopotame lay doon day ngandax na bàyyi loolu xel les sénégalais sont prêts bëgg nañu ngeen dalalaat seen xel yi ngeen ànd ak seen sago déjà ñu def ndànk ndax nga def ndànk nga indi un million deux million trois million de parrain moo gën nga parax paraxe nga dem indi cinq millions de parrain yu baaxul ndax Sénégal tey kat dafa am borom de Sénégal tey Sénégal njaay la tuddoon waaye tey Sénégal Sonko la tudd njaayee ni dañuy xaar Sénégal tuddatul Sénégal njaay c'est Sénégal Sonko guddi yi ñu toll loolu nag yàllaa ko def du man tunkara xam nga man bu leen ma ci tooñ ndax bu ma ko newoon sax Sénégal tunkara ngeen ne dama ko bëgg a accaparer déedéet Sénégal Sonko la Sénégal tudd et Sonko dama bëgg ngeen bàyyi xel dam waxaat naa leen ko dama leen koy waxaat bamtuwaat man sooninke laa saraxole man duma sudiste il faut nit xam ne moi jeune ne suis pas wala ne wala waa Casamance laa dégg naa lii non man je suis un sénégalais sénégalais laa à pur entier maanaam sénégalais laa pur lamb naa fépp ci Sénégal lal naa fépp ci senegal mais dama leen bëgg a yëgal ne le président Ousmane Sonko est un seul espoir pour nous benn rek la du ñaar damay ñaan bépp sénégalais bu gëm projet bi te nga bëgg a defar ci projet bii le moment où on est nañu jël suñuy différence yëpp ñu tegee ko de côté te ñu dem ci intérêt généralu parti bi mooy lan mooy ñu parrainé ni Ousmane Sonko bëggee ñu parrainé bu fal jotee ñu fal ni Ousmane Sonko bëggee ñu fal nañu bàyyi loolu xel jàpp leen ci rek gars yi sama xarit yi yëpp nag ñëpp lay ñaan ci kaw tàmbale bépp activiste bépp journaliste bu and ak ñun bépp patriote bu and ak ñun ñu lay ñaan ben ñaan kep nañu and ñun ñëpp ñu joxante loxo ñu and ñun li Ousmane Sonko bëgg ñu def ko l'intérêt national du Sénégal l'intérêt national du parti PASTEF ñooñu waakar kër ñàkk jàmm wallaay duñu campagne dama leen di ne am na ay xibaar yu ma am yu leer 90% des journalistes du Sénégal sont corrompus wat len ma Yenay defal sen bop sen calcul Yenay tanal sen bop. 90% des journalistes et des chroniqueurs que vous voyez dans les télés aujourd'hui fay nañ leen ba pare ñoom ñëpp dañoo dëng ñoom ñëpp dañoo corrompre ñoom ñëpp tey amuñu dara loo xam ne mën nañ offriral sénégalais quatre-vingt-dix pour cent defe dix pour cent yi des yéen xam ngeen ko ba non non non quatre-vingt-seize pour cent quatre-vingt-seize maanaam téeméeri taskatu jël ci Sénégal juróom-ñeent fukki yeeg juróom-benn yi jël nañu xaalis te dañoo dëng yor naa ay ojo yor naa ay preuve yor naa lépp toog léegi nii du waxtu bi nañ leen bërgal di liggéey ñu bari tey yéen leen di déglu ci rajo yeeg télé yi ñu naan la waa Sonko de moo fi ne bu demee waa vraiment premier tour bi dana xaw a jafe waaw deuxième tour dañuy fen dañoo jël xaalis yéen xam ngeen ne ci senegal bii ñu ne tey buñu demone élection ak Macky Sall Ousmane Sonko ak Macky Sall ak mëna don Ousmane Sonko 90% lay am ci premier tour man Ousmane Tunkara ma len ko wax 90% yenen 10% yi xam nga kan mokoy am Amadou ba moy am 0,5% Mamboy Diaw am peut-être 2 wala 3% Khalifa Sall am 0,0,1% Idrissa Seck am 0 Pape Djibril Fall à moins 0,55. Et au, au, au suivant. Déthié Fall Fatena, naa ko sama xarit ju baax jooju moom am lu bari incha allah ak soxna Aïda Mbodj ñooñu dañoo dëggu danañu am voilà danañu am tout. incha allah rab waaye nag Sonko moo fi ne gis nga ñii di chroniquer di leen Dylan di Dylan nax di leen serul di wuruj di waraj di ngarale dañuy tappale rek Sonko fan lay dem election ak Macky Sall wala ay Amadou Ba Amadou Ba la wax de Amadou Ba Jamil Sané xam nga lumu doore wa ñom Amadou Ba Jamil Sané inconnu l'inconnu Jamil Sané a doublé les voix de Amadou Ba doublé manam bu Jamil amé 70% Amadou Ba 35% lam yéen naka ngeen mën a xalaatee Ousmane Sonko mii ñu xam foo dem ci àdduna bi dañ lay ñaanal a ñaanal gis nga tey dinaa leen wax dara dama man tey léegi bu ma rombee ci diggante ay sénégalais fukki sénégalais yu ma gis fukk fukk ak benn ñoo may ñaanal léegi ma Sall ñaata la man man masumaa dem gis ndaje sénégalais boo xam ne fukki nit la benn nit di wax ci Macky Sall donc loolu mooy sondage un pour cent un sur mooy dix pour cent léegi Macky Sall bu dee fukk yu ne benn la ci am mooy téeméer yu ne fukk la am te amul loolu léegi moom naka la mën a gañe ay élection bay dem ay deuxième tour xam nga nitu Macky Sall yi problème bi ñu am Sénégal bi gën a mag ban la doon dama leen koy may nii tey mooy campagne d'abord ñu campagne d'abord campagne nitu Macky Sall sàlli li ñu am ci senegal mu gën leen jafe campagne la boo mënta campagne ci réew kenn bëggu la kenn faalewu la nooy gañe ku mënta campagne ci ab réew kooku naka lay gañee ci réew moomu sénégalais na nuy waxante dëgg waay dama bëgg nag ci parenage bii xam ngeen lu tax waa Pastef laaj trois millions C'est parce que l'électeur um sénégalais est ce que tu as 3 millions 6 ans man d'accord Pastef 5 millions de parrain là soxla pour pas Pastef 5 millions Nous, avons am nañu parrains boo xam nous avons million millions ko am ci ay parrain mais parrainage ko ci ma xam ngeen nitu Pastef warul pare na ñaari nit doublon baaxul boo xasee ba jox sa carte Biram Souleye Diop bul ruus jomaay nga ko koy jox wala di ruus El Malick nga ko koy jox El Malick faalewul loolu Biram Souleye faalewul loolu ndax ñoom ñëpp benn lañ boo joxee kii jarul ngay jox kële boo joxee kële jarul ngay jox kii nañu tey bu ñu parax-paraxe ba yàq bu ñu yàkkamti nañu jël suñu temps def parrainage bi mu set wicc élection yi bu ñëwee xam nga man damay déglu ñu bari ñu naan balaa midi non non non ñun du ñu yegg midi ak Macky Sall ak gars yi balaa dix heures ñu duma leen balaa dix heures du matin ñun dem nañu ci urne yi voté ba ñoom ñooy gaaw yuuxu ne d'accord nañu ne gañe balaa ngaa dégg ne dangaa sàcc ay élection xanaa nga am ay vote ku am ay vote moo mën a sàcc ay élection bu len concentré wu ci sen yoy ñuy wax dañu bëgg dalal sen xel ne waaw wala diw moy gagné waaw kan moy joxe résultat yi waaw bu joxee résultat yi kenn du ci man dara bu len faalé lolu waaw kan mo nek cour d'appel waaw ki fa Macky Sall tek nitu Macky Sall bu len faalé lolu Ousmane Sonko wul lolu donc ñun bu ñu faale loolu bu góor bu taru dem na ci boîte de nuit mu sol t-shirt bu wex tal ludul gëna gën a duufal euh, euh, euh, dënd bi dara du ko fa dal xale bu goor bu ñaaw dem na ci boîte de nuit bi sol mbazin bu wex tal jël ay lunettes yu wex sol jël lepp sol waaye ñaawaayam gi du té day feeñ bu len faalé ñi nga xamné ay wax kessa lañuy def bu len len faalé bay len len ñom ñu wax ñun ñu jëf ba yi di àddunay démb ba léegi yàlla masul fay wax bàyyi jëf loolu dama ko daan dégg lu bari ñu koy wax yàlla jëf lay fay du wax donc ñun bu ñu demee di jëf dajale suñu ay parrain Macky Sall ñëw élection billahi dix heures du jot dañ koy ànd nag ak fulla ak fayda bu mat sax Macky Sall ñoo ko man man ndeyam man baayam te te déjà bitim réew dama leen koy wax bépp nitu Macky Sall Sénégal amatu leen droit xeex bu kenn xeex guddi ñu toll nañu concentré ci élection yi nitu Macky Sall yi bàyyi leen leen ak waa bitim réew ñoom dootuñu voyager ci bitim réew kenn dootul tukki ku tukki bitim réew ñu won la safara gis nga ñun suñu gars yi gii mari Sagna xool leen ko bitim réew Guy Marius Sagna bu génnee bitim réew dafa ay millions de personnes ñoo koy wër léegi ana sondage bi Macky Sall la la wax de président du Sénégal bi mu Amérique dafa fay kenn ku né 300 dollars ñi 400 ñi 200 pour ñu dem gatanlu dafa fay gi Marius Sagna doomu adama yi ñoy fay voyager pour dem gis ko donc lolu moy sondage so leen bëggé xam sondage xol leen lolu waye bu leen déglu télé Sénégal yu mëna fen yi journaliste Sénégal yu mëna doul yi wuruj waraj fen rek boo jëlee ñu mel ni ay lëndëmal boo jëlee ñu mel ni ay TFM duul rek Seneweb duul rek ñooñu dañuy ay télé ñooñu dañuy ay télé ren c'est des ay ñoom Maimouna Ndour fen fen na fen na fen na fen na boo leen xoolee a Ndour xeesal gi mu xeesal ba gatam gi tourné Maimouna nduur Faye bandila la déglu leen ma de Maimouna a nduur est une criminelle moom moo la gën a leer leero bi yàlla ne ku mel ni Ousmane Sonko wala kenn ku mel ni moom bu faloo ci dëkk bi moom day perte licence su teleem parce que télé bi deful liggéeyu tele liñ ko joxee licence defu ko daf ko jaay nekk géwél may mun a nduur tey mu tëggoon orchestre moo gën li muy def Cheikh Yérim Seck mu nekkoon jigolo prostitué bu góor di jaay cucu bi moo gën li muy def ndax moom jigéen yi lay triyande rek jël seen xaalis dem yoonam tekkiwuñ dara tojuñu fen yàquñu fen sénégalais nañu am fulla am fayda am taxawaay te xam ne Sénégal ñun ñoo ko moom de la Sénégal nous appartient à nous ñun ñoo moom Sénégal ñun ñoo mën a defar Sénégal ñun ñoo mën a yàq Sénégal band yii ñu wër buñ leen déglu ces bandits de grand chemin, ces délinquants, faut pas les répondre. On n'a qu'à continuer à mobiliser, continuer à se concentrer, continuer à faire le travail sur le terrain. Inch'Allah Rabbi. Billahi. dinañu am ndam Insha Hurabi. rabbi Salam, Brother Dungara. Can you please, whenever you get a chance? Okay. Can you please? I don't know what you mean. Can you please? Well, call you? I figure that's what it is. Call you. Guy, taxaw tam ñii ñoom xam nañu ils sont finis Macky Sall moom xam na ne il est fini Amadou Ba moom xam na ne Macky Sall da koy nax ñoom xam nañu ko waaye ñun sénégalais yi ñun ñoo war a jël suñu ay responsabilité xam ne ñii ñu ko séqal c'est fini avec ces bandits là amuñu kàddu duñu wax dëgg duñu def dëgg gëmuñu Sénégal gëmuñu sénégalais yi gëmuñu dara tous Maintenant, c'est à nous, les Sénégalais, de prendre nos responsabilités. nous nous de ñu Nous suñu ay matuwaay nous suñu ay responsabilité vidéo bi Nous yegg fune. sama xarit patriote ngir dimbali Pastef nañu jappalé Pastef damay saraxu nak ba ci souf duma tuddu tour nañu jàppale Pastef ak candidat yi nga xam ne président Ousmane Sonko moom moo leen dooleel pour ñu wuti parenage léegi nag li ci des ñun dañ koy bàyyee Ousmane Sonko ndax nit nag munoo jiital imaam imaam jël muazzin yow nga ne noono yow yaay doon imaam bi yow yaay doon muazzin bi te yow yaa ko di jiital loolu mënta nekk mënuñoo jiital Ousmane Sonko pour mu nekk suñu kàddu ñu jiital ko pour mu jiite ñu ba pare ñun ñu bëgg koo defal liggéey bi ci suuf te moom yëgul li ñuy def lan la ñun ñoo war a déglu ndigalu Ousmane Sonko te ñu dox ci ndigal man ce qui m'étonne quatre-vingt-dix pour cent de mes amis quatre-vingt-dix vingt quatre-vingt-quinze ñii gëm nañu tarixa ñii gëmuñu tarixa et pourtant sëñ bi ndigal bu mu joxe moom ngeen di topp n'est-ce pas pun nañu usman songko Ousmane Sonko mu sel mi ci mirum politique loolu rek lañu wax Ousmane Sonko ñun ñoko ko nañ ko déglu jox ko nopp buñu digalé ñu def buñu téré ñu bayyi billahi kon duñu am lu nakari waye tok fi di tal sa télé di déglu Maimouna Ndour muy dul di déglu Cheikh Yérim sek muy katch bu ñëwé mu ne day serman sëñ euh, sëñ bi boo leen bëggee xam dëgg laaj leen Cheikh Yérim Seck lan la def Ousmane Sonko ci élection deux mille dix neuf te deux mille vingt quatre dara changé wu ci moom pare na tout pour guerre ak Ousmane Sonko nañ koy tàllal micro muy duul rek suba ba guddi jot Cheikh Yérim Seck bu leen fàtte ne ñun patriotes yi ñoo tax astu njoon bàyyi ko man naa yëkkati sama loxo maa ngi nii kenn. ñun ñoo tax astu njoon fase ko naqar boobu mu ngi ci moom ba léegi te astu njoon léegi dégg naa moom dem na départ na moom moom bi idda bi matee rek pour na Cheikh Yérim moom yow tekki woo dara dem na jëli beneen góor bu baax dégg na xaw ma nag góor gi waaye dégg naa jël na keneen donc loolu moo lay won ne Cheikh Yérim est noom homme donc daf leen mere patriote bu ko kenn déglu dafa mer Maïmouna Ndour yàqkat la may Maimouna Ndour fay mooy doomeeraamu journaliste bi jiitu dem leen ngeen xool yan question la doon laaj Ousmane Sonko moog Cheikh Yérim mii bi Ousmane Sonko di def euh, dédicace su livre am ba solution dem leen ngeen xool yan question lañ ko doon laaj waaw yow dégg naa boo ñëwee ci réew mi yow salafiste nga dégg boo ñëwee ci réew mi waaw màggal waaw dégg waaw ñaata jabar waaw dégg naa da bàyyi sa sikkim dégg naa nangam loolu question yu yu compétent la incompétent maa wax lii sénégalais yi ma bëgg ngeen dégg ko Cheikh Yérim Seck Macky Sall lay liggéeyal jël na alal bi ba pare Cheikh Yérim Seck doomam boobu siifoon ba ñu fexe mu génn daw na dellu France dara toppatu ko siif vidéo siif bi moom Cheikh Yérim mii kaa rek la ba bopp bi fees waye waxatu ci fi mu toll ni dafa ngamna yu paré pour xex ak sénégalais mom ak Maimouna Ndour fay ak yenen journaliste samba boy yi ngeen di gis kat yi kat yi nañ leen na ñukk ni yak bu nakari te ñu top ndigalu président Ousmane Sonko mu Sonko dafa joxe ndigal nañu top ci ndigal li Sonko daf ju jox ndigal

président Ousmane Sonko joxe na ndigal nañu doxee ndigal loolu président Ousmane Sonko dama leen di jox benn benn benn expérience bu mag rek man bi ma juddoo ci sama ndey sama baay ba léegi musuma dégg nit di préparer contre DGE direction général des élections xool leen Ousmane Sonko ni mu yaayee xel rek nit ñi bu ñu daan préparer conseiller constitutionnel la ñu dégg ñun booba ba léegi bi ñuy ne Sonko du bokk ba léegi yan nii man mii di Ousmane Tounkara musuma xalaat ci àdduna ne DGE dina gàllankoor Ousmane Sonko man dama yaakaaroon ne conseiller constitutionnel lañ koy jéem a gàllankoore mais ndekete Sonko xamoon na lépp xool lii lii may yàlla de moom xamoon na lépp mu préparé ko Sonko bu parewuloon yéen ñu on est fini est-ce que xam ne Sonko bu parewuloon mom dong mu dem yóbbuwul juróomi mandataire yooyu yóbbuwu leen waaye moom rek mu dem ñu xagn ko mais c'est fini pour Pastef Sonko lolu dalon nañ len ci législative yi xam na ne gars politique dañ ci salté Sonko yu préparé ci tous les points il est prêt pour la DGE il est prêt pour le conseil constitutionnel Le règle laa am lu ma wax conseil constitutionnel mën nañoo toog yaakaar ne gàllankoor Sonko yaakaar ne gàllankoor waa Pastef waaye ñoom li ñu dul sentir ne ñun pare nañu te bii yoon incha allahu rabbi benn erreur du am comme ni mu amee aussi ci DGE Ben erreur du am le président Ousmane Sonko est quelqu'un de très conscient des enjeux politiques du Sénégal politique xam-xam la tey Amérique boo bëggee diplôme politique mi ngi tudd political science la science politique political science da nga koy jàngi am na ci ñoo xam ne dañu am doctorat en science politique political science maanaam science bu nekk ci ginnaaw politique politique la c'est de de la connaissance politique nous rek de du nga ne rek di politique non non non euh, Elton mooy woote bi Elton dama live su ma ma live là voilà live là ok la science politique grand live dama suis live Je ma ok Manala, science politique anglais bi ne political science Dangai ngay gue benn nit nga ñëw nga ne ko mais yow qu'est-ce qui est ton diplôme j'ai un master en science politique I got a master in political science respecte ko respect Koku xam politique kooku mën naa waxtaan waxtaanu politique waaye nga gis benn Allah benn Masamba Mademba muy nyau di la jox ay technique politique te Ousmane Sonko vous a toujours dit qu'il était major de sa classe classe buñ ko il était toujours premier C'est xam-xam lay laaj donc Koko, il a déjà connu ce qui est la politique te préparé na ko ba pare xam na ne Macky Sall tappale yi mu defoon bale yoon ak dil yi mu ak njuuj njaaj yi mu dem indi ben statisticien Ababakar Sadiq Bey teg indi sàccam yi ñoom Aly Ndiaye ak bandi yeb rangale tek Ousmane Sonko contre na loolu yeb bi yoon préparé wu len rek 2024 day saf sap billahi wallahi tallahi le 24 février Ha. ah le 25 février président bu bes ngeen di dégg Sénégal de du doon Macky Sall té du tuddu Amadou Ba garantir na len ko On leur battra à leur jeu. Américain, I'm going to beat you on your own game. bàyyi leen loolu xel. science politique. boo leen xamul li may wax wutal doom. nga teg ko sa wet. nga koy laaji question muy tàppe Google di la indil nga koy laaj muy tàppe Google di la indil. politique xel la xalaat. science politique la tudd political science. c'est de la science comme science physique. comme science naturelle de la science ay technique la technique Tek pion bi bay wadi tek pion balé, chess. nga jël yow sa pion tek fële bay mu tek benen pion nga jëlaat sa pion tegaat fële mu tek benen pion nga ne ko jàpp naa laa loolu politique c'est de la science calculation du ben nit bu nan ndoxam ba sedd nan kafem ba biram fees ne non non non non non non non non non non eh waay politique du lii waay nañu dem rek nañu wote ku nekk na jël sa carte wote déedéet politique demeewul noonu calcul la xel da ngay utiliser sa cerveau bii comme Sonko ni mu koy defee Sonko ñaata weer lañ ko tëj mais moom xanaa déggu leen bi journaliste bi ñëwee di ko interroger mu ne ñun ñu ngi liggéey ci suñu ay plan ñun on ne en train de travailler tëj bii dafa baax ci man maa ngi sant yàlla ndax dama doon liggéey léegi kooku ñëw la mu liggéeyoon di leen ko tegal ngeen koy weddi non buñ ko weddi Sonko moo xam li tax mu teg li mu teg yéen déglu leen ko rek ne leen teg il faut nag nit bu départ te xamuloo fu mu jëm bul ko dogaale de bu dul loolu doo xam fu mu jëm neel tekk ñu seetaan Sonko ak ni muy doxalee ñu topp ci incha allahu rabbi ba mu yegg au point final billahi wallahi di ngeen ma woo ngeen ne ma tunkara macha allah merci beaucoup ngeen ne ma waa jii moo bari xam-xam ndax dina leen bett lool oh Sonko oh Sonko dina leen bett oh Sonko vous fera surprise eh gars yi Sonko dina bett ñi Sonko dina bett ñii Sonko dina bett ñii keroog Macky Sall dafa fanaana a def ndeysaan réunion dégg naa ci pale ba man dama ko yërëm sax ndeysaan yàlla mu dogal ponkal mu toog fële mu ne du nangu li yàlla dogal yàlla yaa karim yaa jabbaar yaa zil wal ikram kooku lu mu dogal c'est fini yàlla lu mu dogal c'est fini dara mënu koo dindi c'est fini a atampi a gasi yàlla bu dogalee doomu aadama bu ko jéem a gàllankoor da ngay dee ci yoon bi wala sa tànk dagg walla nga faatu wala nga xëm walla nga ximaliku wala nga feebar wala sa njaboot dee wala sa lépp yàqu waaye dogalu yàlla bi ala kulli aan dana am yàlla bu xasee ba dogal yàlla bu xasee ba moom dogal na borom kun faya kun dara du ko dindi donc yéen ñi bëgg dof dof lu dof larul leen yéen ñi bëgg voilà ñun ñoo fi ne dañuy tere kii mu dem fale dañ koy tere tourner fale waaw dañ koy jàpp yeew xanaa yéen fekku leen fi firawuna xanaa yéen fekku leen fi firawuna ak Muusa doom bi nga yar ci sa biir kër mu pare renversé la xanaa yéen gisu leen ko xanaa yéen gisu leen ko xanaa Nelson Mandela sax nañu dem ci Nelson Mandela mu dul jullit sax te yàlla dogaloon piira bota tas parti politique jàpp ay doomu aadama képp ku nekk euh, national euh, black national national liberation party l euh, national liberation party l np nlp NPL whatever ñu jàppale tëj tas parti bi rajaxe lépp ñu ne ñoom se fini ñoom ñoo fi toog ba faw fu mu mujj Ousmane Sonko nee na leen moom nguur tiitalu ko wax na leen ko nee na leen d'ailleurs moom nguur musu koo intéressé moom li ko intéressé mooy na Sénégal changé na Sénégal change. Le Sénégal dina changé Maki. Macky Sénégal dina changé wallahi pour le bon dina changé parce que Yalla, là ñu indil ay Ousmane Sonko yu baré baré baré baré bare ci génération bi on a beaucoup de Ousmane Sonko qui sont nés Maki, The Sénégal that you know is no longer. Le Sénégal est destiné à changer par la force dooleemaam bu dee yaay yàlla nag tawal yow doo yàlla mënoo taw Macky mënoo dara Macky saw sax bu la ko yàlla dogalawul sa loxo yi du marché yow nga ne yow Macky yaay jaay nit doole kañ ngeen yaakaar ana karma ana karma billahi fekkena ay situation karma yo xamne ci sama dundu bu ndaw bi suma len ko netali won ngeen ndaw ba àddina yalla ay ci pootu yalla de bu pour toraxal la maki te pare na dal ni rek mo lay dal foo romb ci senegal ñu yuuxoo la sàcce wa bo sonko sonko foo romb ci senegal yow nga na dedet da ngay continuer gour say lex di forcer maki cucc bu dam musuma ko gis ci aduna waye aduna bi dam cucc bu dam ci yow lay tambalé di nga mas a dox rek sa affaire bi dam xam nga affaire bi manam sidit la warta dam waye yow sa boss dina dam cucc bu dam ci yow rek lay amé delul ginau, bala muy trop tard yow kombi, ñulay jay rek ngay gour say lex di bagar gagar ak sa taat wu rëy xamoo foo jëm ngay dof-doflu delul ginnaw delul ginnaw te def ndank yow xam nga ne dara ci kenn fi New York jël nañu kaani xagn toj ko sa bir gémmiñ ngay laqatu ci ginnaw policier américain kamgane pour ñu ar la yow xam nga ne tojuloo fen te maki bis bo wacce rew mi yow lo fasiyene def fam ngay tukki do am dara ci aduna bi ah? Faut tukki duñ la may Quand kon yow da nga defe fenêtre, boo wàccee nguur gi boo ci aduna bi di nga am jamais tu n'auras pas la paix pour le reste de ta vie Contra Bobu signé nañ ko ak yow amati jam, Ousmane Sonko Bogon na la jox jam, nga bañ ngay dof c'est fini pour toi c'est fini yow dootoo am jamm aduna, do am jamm àllaaxira parce que pour fo dem ci aduna bi dinañ la traquer dès que tu finis avec ce pouvoir on va te traquer on va te poursuivre et on va mettre fin à ta misère vie <coughs> paranañ ci yow paranañu ci yow ak say ministre ak say bandi ak say délinquant ak ñi la wër yëpp paranañ ci yow Ousmane Sonko la ñu gëm Ousmane ndigal Sonko mu sell mi lim ñu digal loolu képp la ñuy def ak loolu lu mu mën a doon nag gis nga Macky Ousmane Sonko bu jógoon mu ne ñu fal leen Ndella Madior Ndella Madior mooy doon la prochaine présidente du senegal Ousmane Sonko su jogoon mu ne ñu fal leen seen yaay Aïda Mbodj ay Mbodj mooy doon la prochaine présidente di Sénégal Ousmane Sonko su jógoon mu ne fal leen Déthié Fall fal leen fal leen Abbas fal leen Macky fal leen diw fal leen Kale képp ku Ousmane Sonko joxoñ kooku mooy falu yow Macky Sall mii Ousmane Sonko su ne woon ñu bàyyi la nga am troisième mandat da am troisième mandat pour muy leer Ousmane Sonko su léegi ne eh les gens je veux que Macky ait un troisième mandat dañuy dellu ginnaaw parce que ñun dinañu nous ne moom xam li muy wax il est très calculé mais gars yi dama bëgg ngir yalla ñu déglu Ousmane Sonko ñu déglu Pastef ngir yalla nak ngir yalla nañu déglu Ousmane Sonko ñu déglu Pastef parce que xalé bu am kilifa toujours day faj gatché xalé bu amul kilifa musul faj gatché ci àdduna bi ça n'a jamais existé donc ngir yàlla ak yonente bi ñun ñoo tànn Ousmane Sonko mu doon suñu kilifa ngir yàlla ak bi maa ngi leen di ñaan ñu topp ci ndigalu Ousmane Sonko on a des voix autorisées on a de bon journalistes am nañu ay journalistes yu baax am nañu quelques yu ñu dese Walf du ñëpp de Walf genn wàll gi yëpp jaay nañ seen ngor mais am nañu quelques yu fa des am nañu Pape Alé Niang amnañu des activistes ñu ngi ci réseau yi di def liguey bu les activistes ils sont là ils font un travail magnifique on est le deuxième pouvoir du Sénégal après le PASTEF après Ousmane Sonko li may wax nak man c'est basé c'est fondé sur des sondages Si xolé Ousmane Sonko rek mo meuna dem live Sénégal am 100 vues Gina Ousmane Sonko benen nit bu meuna am c'est nous les activistes ñun rek ñoo meuna dem ci réseaux sociaux yi la journée bi di jeex Sénégal cent mille personnes sétane. amul benn télé bu ko man amul benn télé ci Sénégal bu man Sénégal, donc activistes ñun ñoy deuxième pouvoir du Sénégal premier pouvoir c'est Ousmane Sonko le deuxième pouvoir c'est les activistes le troisième c'est l'opposition et Macky Sall ak journalistes yu mën douli, nous partageons le ñu partager quatrième mais deuxième bi moom c'est les